n'êtes pas en Europe, ni en Amérique, ni à Dakar, mais vous êtes bel et bien dans la ville sainte de Touba. waaw yéen a ngi biir Touba ci boutique Total Kër Khadim bi nekk ci route de Mbacké ci wetu banque CBAO bi waaw dañoo élargir suñu boutique ba mu gën a ngan ba noppi it di jaay bépp produit charcuterie ak poissonnerie ñu yokk boutique ba daal di fay def alimentation daal di fay def alimentaire def fa hygiène def fa cosmétique def fa vaisselle def fa habillement def fa divers ak lépp yemul foofu dafa am gaamu soow soow piir soow mu neex boo xam ni nag ci ay siwo la nekk soow mi mi ngi tudd poroxaan soow boutique Kër Xaadim am nañ restaurant bu ñu tuddee El Hadj Dame si la ñu koy wax El Dasi restaurant boo xam ni décor ba boo ko gisee macha allah da ngay defe ne yaa ngi Amérique wala yaa ngi France wala yaa ngi Ndakaaru déedéet yaa ngi fii ci tuubaa am décor am salle VIP bu baax. ñu climatiser ko ba mu sedd waaw teel leen a réservé pour seen i conférence seen i réunion seen cérémonie seen i pause café seen i ndaje lu ngeen te soxla rek équipe bu mucc ayib boo xam ni ñëpp liggéey rek la ñuy def ña nga foofu di leen xaar terrasse ba am na pâtisserie am na nañu traiteur woo ñu ci 33 976 03 39 77 899 45 45 wala 76 354 44 44 wala 77 583 17 17 boutique Kër Xaar Khadim nekk dans la ville sainte de Touba. loo ci ñaan mu may la loo ci jéggalu mu baal ci la ngëne yi tàbbee ci la xewal yi yokkoo shahru Ramadan Ramadan غدا يا حبيب يا حبيب رمضان mu ëmb leen mu gën ci weer yow na nga matal julli juróom yaatalal sa xol sàkku yërmande ngelawaay bu ci mooy yàlla tubal jégalul dellu ci yàlla

takk laa la basang seesi mën ma cee yàgg booy bong laa basang mani mani déj nag fii fii laay doog wax sama ndoog nag daa diis de kilo mburu ah, gerte 400 ñaari mbuusi galaas ñaari bitéeri si kilo ceeb ah waaye man damay dogu nag <laughs> damay dogu de maaleykum salaam kooku du sëñ Moustapha ah ki ah kii du taq jee waaw ah mooma bi yow moom jafe nga de waaw maa ngi rek maa ngi seere ba yaa ngi ci jàmm da ngay tey ah sëñ bi ba nga ñu de waaw bàyyi ma nag déet jëf bi da ngaa jafe de tey daal boo bëggee dégg ah. laa ko may waaw waaw koor gi dama ko siddalay bis ah laalal naa ku ne ah. waaye tey yéen a xewle ah moo taxit waaw waaw moo tax ma ñëw sama jigéen bi ah dégg naa leen ngeen di waxtaan kay waaw waaw yaa ngi ci jàmm ba jàmm baa alhamdulilah alhamdulilah eh, ko basan ma dem fii te ñëw ah damay génn nii rek waaye maa ngi ñëw déedéet du ma yàgg waa lu mën a xew na nga muñ ndax ku muñ muñ te dara yàggu tamit te ku toog di xaar suñu borom dana dimbali. li nga wax sa dëgg la. dëgg la ndax ñun amuñu de waaye dafa fekk ne jamono yi paase lu ñu am rek almaxtaar moo ñu su yu bari. man li ma lay dolli. mooy lépp loo fekk xaalis bëgg ko yàq na ko defal tey nit ñi bokkuñu yam néew doole dafa bari te dimbali way ñàkk te yaabay ci ne kenn xamuñu toll ndax wërsëg dafa yëmu te am na ñoo xam ne ay gor lañ te rus nañoo ñaan kon foo leen fekk na leen dimbali bul xaar kenn la cay dolli ko mooy sëñ Tuubaa nee na laa tastaxil bi risqi isra bul wara wërsëg nag bu ko moomale kenn ku yàlla suñu borom ci lay jóge te nag ko dimbali doomu aadama daal lu ko waaye jënd jar na ko jaamu yàlla nag yaa ko defal sa bopp ndax fardul ayni la ci yow waaye nag jaamu liggéeyal yàlla ci jaami yàlla mooy fekk lu nar ñaaw nga rafetal ko ci sa wërsëg loolu dara koo gën nga jàmbaara ngoog almuxtaar nit ku baax waaye nag lu mën a xew na nga ndax amoon na góor yàlla goo xam ni fanweeri fanweeri yi nga dégg nii mu fekkoon ko ci ab dëkkam am lu taal bu tiis musaana jot day jël cin li rek teg ko ci ko xal yi mu tàkk ba fay rek nag na nga muñ xam ne adduna dara yàggut te nag ku muñ danga nga muñ te xam ne maam jaaru bu soxna man yaaru bu su maam jaaru tulaayi musta xëy benn yoon di jàmbat lu mu lekk wala mu jàmbat bu ngaa xëy benn bis ak gaalam yekk ci kaw lalam xar ko toggal ci laax maamar sëy di fekk ko tool ya loola moo waral mbooloo mu bari mi lu mën a xew rek na nga xew rek koro bu ñu lay muuree sa kër waajur de jàmbaar ak doon gor moo tax ñu ne bu àggee na nga muñ rikk na nga muñ ndax ku muñ muñ lii nag nanga nga jàpp xam ne bëriwut ndax doomu aadama ëpp xaalis ëpp lépp lii ko dimbalee te nga góorgóor bu baax dara bu seen yaay di nga joxal ma xam ne ne lebal nga ngor te buñ la fayee Tafa di nga kontaan waaye nag kuy lebal lebas as góor as góor moo gën ab jaam kenn ko lebal ndax ab jaam loo ko ay gor ay goro mën a toog fii di muñ ba suñu borom fekk la fi tey ji waaye jamono ji nag ku muñ muñ te ku yàgg cëb teen baax fekk la ci na nga wér ni lépp ay baax muñoon rek adduna dara yàggut bien.